Aïda Mbodj moom la ñu euh, dénk euh, DER moom nag gannaaw bi ñu ko dénkee DER ñu fàttali ni kër guy leble xaalis la ndeke nag am na caay-caay gu metti goo xam ne am na fa ñu dem déglu Aïda te dellu siwaat am na ay Mamadou Sène yoo xam ne sax dañ cee def leneen dañuy ñëw ne la wutal dix personnes yoo xam ne da nga naan da leen di jox deux cent mille dix yooyu dinañ signé deux millions mais boo ñëwee deux cent mille lañ leen di jox bu ñu génnee bu ko defee ki ci des daal di responsable bi daal jël dugal ci poste xam nga ko deful dara nga woo ko ne ko kaay ñu jox la deux cent mille day ñëw te xamul ni signature am deux millions la te loolu commencé nañ ko découvrir xat woo ay nit yoo xam ne dañ la naan yow yoral nga teer deux millions ñu ne ah man deux cent mille lañ ma jox te fekk na sa signature nga fa léegi nga naan di woo ma woo woon nag benn xale bu góor la yónni woon nag nangam ak nangam waaye xam nga police Sénégal ñoom fi mu nekk dañuy door a am liggéey man askan wi ma bokk mën nañoo maye lu ne ci àddina waaye boo leen yorelee ñaar dërëm c'est-à-dire da ngay maye million euh, euh, mais mais di lee fayeeku ñaar waa man ci askan woowu laa bokk voilà mi ngi doon Assane muy mbir mu yéeme moo xam ne bi mu ñëwee la mu waxoon ma nga ci nee na fayeeku rek laa man jox nañ ma lu ma maîtriser li doy waar nag mooy bu ñu gisee kenn ba woo ko ah kër sony bu kat dañoo gis ni war ngaa fay fii si DER 2 millions wala 5 millions ñu ne ah, lu ñu la lebaloon mu ni ñaari téeméer lañ ma lebal wala ñaari junni lañ ma lebal wala deux cent mille te fekk gars yi bi ñuy génne signature bi ndaw si signé moom deux cent deux millions wala deux trois millions lañ génne jox ko te fekk deux cent mille lañ ko jox. waaw samay bu waaw. gis nga soxna Aïda Mbodj mii li ma koy digal mooy na dem récupérer xaalis dem leble ko te xam ñi mu koy lebal te li jàll mu xam ne jàll na loolu moo gën. ndax gis nga bu fii détail bi bu ko toppee du liggéey te dinañ fi saraxe ay nit ci erreur. saraxe mooy. gis nga tey jii euh, man Assane Mesere ma ñëw daal di leb ci banque bi Alaaji Sa Njoogu Mbeng lebal ma 2 millions ma ne ko 2 millions laay leb mu lebal ma 2 millions ma mu ne ma 2 millions yi nga maa di signé ni leb naa 2 millions. mu ne ma signé waatil fii ma daa di signé mu def ko ci machine bi arrêté ko ma signé. mu noppi mun mu signé ko fépp ma signé ma nangu ma nangu ne maa leb 2 millions yi ma daal di nopp mu jox ma deux 200000. waaw ah. ni ma demal ma dem maa leb leb ba maa ko war a fay. léegi nag bu fekkee ni si lii lay sukkandiku moom pour xam nga ni waa APR fi nekkoon ñu bëgg ñun waa APR dañ doon dañ doon dañ doon sarxe nit ñi comme ça tey jii nga ñëw leb 2 millions ñu jox la 200000 boo ñëwee ni man 2 millions laa leboon waaye 200000 lañ la si jox topp da nga koy tooñ. ku topp ku doon leble da nga koy tooñ ki leboon rek lañ mën a topp ki mu woo mu ñëw dong la mën a topp ndax këyit yi li si nekk mooy d'accord na ni 2 millions la leb. demeewul noonu ko ko waxee. neneen nu mu demee. ki leb. Mm. li mu leb. Mm. loolu lañ ko jox. Mm-hmm. waaye bi ñu génne xaalis bi. Mm-hmm. facturé wuñ defuñu ci loolu. Ah. maanaam dañ cee def lim bu ëpp loolu. maanaam moom moo signé. Mm-hmm. ci xaalis bi ko jox. waaye moom dañoo def ci këyit yi nii 2 lañ ko jox. maanaam moom Sandiogou nii demal sooy bu jox la. dina la jox dara. man ma ñëw jox la deux cent mille. maanaam ni mu demee fekk fekk man bi ma demee dama ne ko Sa Ndiogou Baye xam nga nu mu demee waaw. nga daal di ñëw di leb deux millions mun la deux la ko lebal waaye nag si biir deux millions yi cinq jox li si dama ne loolu lay demee dama ne loolu laa la wax yow mi ko nangu yow mi nangoo jël loolu. waaye caay caay googu ay dem caay caay googu ay dem dina ñëw gis ko ba pare bàyyi mu dem. waaw yaa ko nangu. ay Mbodj wër see topp kee ndax ay Mbodj bu ñëwee si lim sukkandiku mooy kayit. mais lii caay caay la caay caay de yow yaa ko nangu. mais ki ko proposé rek. banque boo fa demee di leb banque. man dem naa leb si banque. cent waaw bi ma ko lebee. ab banque bi nekkoon fii. waa ji mi ngi ma jox 400000. waaw exemple ma naan ne ko 100000 mu ne ma 100000 dafaa des. Hmm. après mu daal di may kiyaat dagga dagga dagg te da ngaa war a fay weer wu dee soixante mille maanaam yow moom mi nga waroon lebee man laa musul ku koy lebee ci àddina lépp xam ne <laughs> mu leen yërëmal dara <laughs> <laughs> ah, dund nañ na banque la lebalee comme ça yow ki ki topp sa dossier ba moom dana xam sa place xam sa kër bu weer dee mooy ñëw ba sa place nga jox ko mu am na reçu bu mu yor mu dagg sa reçu jox la loolu am na mais gis nga. ay da banque dañuy déplacé wu ñu dem. waaw day fekk nangoo ñëw. day fekk nangoo ñëw waaw boo sa dem boo sa moom mu yor na moto ñoom yor nañ seen moto. Ah am na équipe boo xam ne ñoo yor moto yi wàcc si place terrain bi. Ah, banque day def noonu. te te te yow mi ëpp ay yaay dem fay. non non yow mi ëpp ay client comme son yi bu yow mi ëpp ay client da am lu ñu lay neexale yow da yor sa moto di xëy sax di wuti client. waaw ah, d'accord léegi Aïda léegi Aïda Mbodj laa ni munu fee topp benn waay bu doon leble comme ça son yi bu toog di leble su ma ñëwee ne ko son yi bu 500000 laay leb son yi bu ne ma 500000 yaa ngi nii signé ma signé ba pare son yi bu ne ma 500000 yi signé ma signé son yi bu daal di may jox 300000 man xam naa ne 500000 la ma waroon a jox mais dagg na ca maa bëgg teyit man du ma ko fay du ma ko fay kon boo ko nangoo yow yaa tooñ seen Aïda Mbodj li mu mën a sukkandiku rek mooy kayit yi waaye ki ko doon leble mënu koo def dara ki leboon dong la mën a def dara mhm. Assane Mesere mi nangu woon ni 500000 ba signé ko mhm. ñu jox ko 200000 mu ñëw naan 200000 lañ ma joxoon te 500000 laa leboon yaa ko nangoo signé te boo ko signé si fini. léegi moom kam fa remplacé mu fekk loolu am fa mu amee ci responsabilité waru koo topp Assane. non non kam ko remplacé wóorul ba xam am na am amut kooku dañ koo sosal kooku ñam fa remplacé ñëpp dañ leen a sosal amut kenn kum fa mën a topp ndax ay këyit la fa fekk këyit bi nag son yi bu lebaloon na. yaa ngi mel ni ku maîtriser li ngay wax waaw ah, lebaloon naa ko 500000. Hmm. Assane lebaloon dama lay wax rek Sa Ndiogou lebaloon naa ko 500000 Sa Ndiogou ñëw. ñu ne ko andi see kayit ah, Sa Ndiogou xool dama laax rek. ah da ngaa yow da ngaa leb ma yow. ñu ni ko 500000 nga leb la nekk ko signé waaye ah. lu seen yoon. waaw yow da nga jéem ñoo lebal moo gën ñii muy topp lii muy topp nii mënu ko topp ba sonal si kenn kum ràmpale ñim ràmpale ay kayit lay topp te kayit leer na nañ joxe hélas kon yow fi mu ne fulla nga wax ni bu baax kay xam naa ni fulla laa wax tey te xam naa ni li ma wax dugg na si noppi ñi seetaan waaw d'accord kon léegi ñi joxe amuñu ci benn responsabilité ñi joxe amuñu si benn responsabilité ki nangu nag ñooy ay wuyu ñi leb non non ñoom ñoo nangu ñu ñu këtt leen ko ndax bëgg nañoo ñëw jël xaalis te xam nañ xaalis bëri wuñ pour fay ko moo tax ñu nangu koo jël mais buñ paree woon pour fay ko dañuy lànk dañuy lànk xam nañ ni duñ ko fay moo tax ñu nangoo jël deux cent mille exemple cinq cent mille ñun la yow. dañ nga nangu waa léegi Assane Assane bu ma saa njóogu joxee un million ni ma naa la ko jox. Ah. ma ñëw un million de. naa la ko lebal xaaral xaaral naa la waaw waaw. Ah. ma yow un million la. ma dagg la huit cent mille. Hmm. jël ko man. Hmm. jox la deux cent mille. yow me xaaral rek yow. boo ci amee responsabilité man mi la koy jox du ma ab wëyu. non non yow eh, eh, yow yi ngay sukkandiku mooy Assane. man mi nga bëgg a sang man mi nga bëgg a sang lu tax nga di ma sang dama lay sang xam nga lu tax ma lay sang 800000 yaa ngi yor sa machine toog ma ñëw ni la damay leb 1 million nga ne ma signal may signal nga ne ma signal may signal ba ba 1 million man la 1 million nga fi leb nga ne waaw man la waaye million laay yóbbu man nga ne kon lebalu ma la man la lebaloo ma man keneen moo may lebal léegi nag keneen du la lebal yow mi nangoo jël loolu xam nga ni doo ko laa bokk du ma la fay wala kenn du ma si topp d'accord waaw loolu jàppale la woon rek nañu ñu jéem a jàppale militants yi lebal ñu ay dem ñun ay militants yi Pastef lañ ay ay ay ay ay ay lañ. ñii ñu fi teg ñu jàppale lebal ñu xaalis. yow ku la toog gars yi di ñëw duñu fay salaire. ah nañu jàppale lebal ñu xaalis bi de waaw. Ndiogou. noo gisee njubadeeg caay-caay gi nga xam ni Aida génnewaat na ko amoon foofu la ca DER nit ki li mu leb duñ ko ko jox te pourtant sañe ne fépp ba mu wane ne xaalis bi génn waaye li ñu wax ni moom moo génn génn. waaw xam nga Assane moom man léeg-léeg day nuuru ci caaxaan yoo xam ne. Mm-hmm. te day dem ba defe ne lii mu nekk farata. man loolu ma jaaxal. loolu moo ma jaaxal ci mbir yi ah. xam nga Assane. Mm-hmm. xaalis bi munta lekku mm-hmm. ak pexe yu ñu mën a tëral. xaalis bi munta lekku déedéet xam nga lu tax munta lekku ah. état dafay yëkkati par exemple li ma la ko mën a waxee cent million ne lii moom la yëkkati ngir. financé ko ay jeunes loolu la état def ñu yëkkati ko jox son yi bu cent millions yi son bu di wut ay pexe mhm. yaa ngi dégg bu wutee pexe jël na ku mel ni Assane mhm. signé ko deux million jox ko deux cent mille waaw léegi son bu moom jël na deux mille un million huit cent ya lekk ko léegi yow la taqal bor bi yaa ngi dégg. si xam nga état moom lu muy topp. cent millions yooyu lay topp. cent millions yi fu mu ne. anam. Mhm. yaa ngi dégg eh, lool lay topp maanaam cent millions yi léegi état ki mu amal affaire mooy son bu mii ma joxoon xaalis mu joxoon xaalis bi nu mu ko financé. kon état di woo client bi. yaa ngi dégg léegi yow son bu moom bu la woowee jee yow mu joxoon deux cent mille yi nooy def yow. te moom moo la woowoon ne la. waaw. Hmm. damay ñëw ni ko yow lii nga ma joxoon. <laughs> waa léegi looloo tax Aïda booj ne la. Hmm. police dana am liggéey lool. waaw. waaye booj moom xaalis bi la topp. xaalis bi la topp xaalis bi mu topp moo ko indi résultat yii. Uh-huh. maanaam xaalis bi la topp nangam moo fa nekkoon nangam loolu anam. léegi bi mu toppee nangam loolu ci la gis ni lii la yëf yi demee léegi du moom moo koy regle moo tax mu ne la police dana am liggéey. Mm-hmm. ay na day lijjanti lii ba pare. Mm-hmm. ba ne yëf yaa ngi nii état bii laa fi fekk. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñii ñu leblee ba pare léegi daal li ñu financé ñi ciy fay ñii la nii lay wax nii ak lii nii la maanaam lépp buñ ko dajalee. léegi mi ngi toll ci vingt millions. donc ana léegi kon quatre vingt millions yi nga xam ne moo ne may. exactement léegi nag loolu lay bàyyee ña yore woon mbir maag ñañ doon lebal ñooñu nag police moo fi nekk pour lijjanti du dëgg lebal yor nañ reçu bi te reçu bi un million. ah loolu bi ni mu yëf yi di doxee gis nga état ni ñu ko tegee lu ku ci ne ak sa liggéey fi mu yam. si moom ngay doxal ay dama mënut a def lu dul. lii mu def client bi am na droit topp ko sax. ah non non ah. topp moo remplacé ki fi ne woon. waaw topp leen boobu kañ mooy mooy police. waaw. léegi après dossier yëpp police la jëm. Mhm. loolu kay Assane defe naa ni leer na moo tax man kay Assane man fi mu toll nii moom. bu defee ne waaw kon yow Assane yow kon Assane yow li nga wax ni daanaka mooy liggéey police amul njariñ. waaw maanaam na fi na ne fi ñu ni ma jox ko police man leen 500 loolu yëpp après police koy di jënti la a sukkandiku de police bu demee ci kayit ba tamit moo xam ndax moom lay lijjanti ndax yeneen enquête lay def wala leneen loolu dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoo am compétence boobu. te su boobaa ki jël 200000 sa alaaji. waaw bu ñu ñëwee ko ana say 200000. man léegi nii nii ñu ne ko ana 800000 yi ci def. waa ji bu yoree kayit nii Assane son bu waa ngi nii son bu ñëw wane kayit bi même kayit bi 1 nekk si mu ne waaye li nekk si kayit bi joxuma ko 500000 la ma jox. loolu police du si mën a sukkandiku naan ah son loolu duñ ko ànd yow kayit bi li nekk si kayit bi moo nekk si reçu bi ñu la jox 500000 1 million nga ma wax la lenn ma wax la leen boo ñëwee ba foofu. Hmm. bu ñu demee ba foofu ñoom gis nga uh, sàcc. Hmm. maanaam man mi lay wax ne la dama lay jox lii. Hmm. man sàcc laa. yow xam nga ni man sàcc laa. waaye yow it sàcc nga. Uh-huh. ñaari mi ko nangu. yéen ñaar ñëpp ay yéen ñëpp ay sàcc ah, ngeen. <laughs> xam nga. xam nga gars yi bu ñuy lebal. am na ñoo xam ne léegi nag ñenn ñi am na ñoo xam ne mën nañu bañ a doon sax sàcc mais dañuy xoox. ku ñu xooxee nangu ledd li accepté ledd li yaa ngi dégg hmm. te puis tamit gars yi dañ lay ñëwee hmm. li Assane wax noonu tamit loolu ab na ci maanaam lii doo looy fay hmm. waaw comprendre nga te bindal rek maanaam bu régime bi rek waaw bu régime bi woon maanaam mën naa mën bañ a faj comprendre nga waaw bu régime bi continué woon mën naa naax saay mais nag fi mu toll nii jeqar bi bii nga xamante ni bi moom lañ koy jeexar bi loolu leneen la en tout cas loolu moom Assane mbir la moo xamante ni bi mbir mu baax la xam nga pareen saay loolu mooy problème nguur yi nga xamante ni moom lañu yor yoroon. nguur yi maanaam dañuy wax ne dañuy lijjanti problème u askan wi. Mm-hmm. fekk ne ñañ koy jox. Mm-hmm. ka leen koy jox sa danaan leen lijjanti leen ci seen bopp. Mm-hmm. ok <laughs> waaw <laughs> defarul leen ci. <laughs> dëgg la est-ce que comprendre nga. ka leen koy jox da leen di leen ci affaire yaa ngi noonu. xool leen nu ngeen ko organiser ba am ci dara. dem nga kontaan ñoom dañ ciy fexe ngir am ci dara ñoom it dañuy wut nit ñi leen wutal yeneen nit ñoo xamante ne bi dinañ ci mën a am dara totoo ju jub bu boobaa ñoom ñëpp ñu lekkandoo xaalis ba coow ju jub bu ko defee kenn du po dañuy jékki-jékki ne waa projet sàngam ana fu mu mujj ñu ne naax saay na <laughs> parce que ñañ koy jox sax amuñu woon projet xalaatuñu dara maanaam ay nit lañ yoo xamante ni bii nekku ñu ci lenn. Hmm. maanaam ñu jox leen xaalis ba ñu lekk ko jàpp seen jàmm. signal ngay signal rek te xoolal li ngay signal. mais en tout cas ak nii nga xam ne noonu la soxna hmm. Aïda Mbodj euh, démarré lii lu baax la. waaw parce que il faut ñu càmbar yëf yi Assane. ok hmm. waaw parce que der ñu bu ko defee rek der da wóor ne la kiy def lii moom fas yéene na. teg yëf yi ci siraatal mustaqim te bu yëf yi tegoo ci siraatal mustaqim rek parce que deer yi tamit alaaji yi nee na bu ko lebalee du jël waaw bu ko defee ñu élewaaji ñëpp ñi nga ni mu waxee ni sax yombeewul noonu maanaam deer ci norme yi doo ñëw rek ni lebal ma ñu lebal la maanaam da ngay indi ay papier yu leer. mais bee yomboon ah, na nag bee moom ah, waaw projet non non projet papier papier waaja sax la koy lijjanti non dama non moo la koy lijjanti noonu a demee ay projet noonu la war a demee waaw projet boo xam ni bu dee bu jaar yoon <laughs> li ngay wax ni mais bi fi nekkoon yow bii tey mm. mën nañ la sax lijjantil lii wala wutal la ku la lijjantil papier yi da nga ñëw non demal ci diw mu bindal projet. yow bu àggee dee signé rek luñ la mën signé. après dossier yooyu rek moom la ñuy jàllale. ñu lijjantiwaale nag euh, seen YouTube boobu ñu lebaloon 100 millions te gis naa fa ñaari plateau yoo xam ne matul matul matul 5 millions. waaw loolu xam naa gars yi dañ ko lijjantiwaale. ah yàlla baax waaw seen YouTube boobu ñu ne lebal nañ ko 100 jox nañ ko 100 millions. ah boobu Fonsib la. waaw kon Fonsib ki ko yor it na xam ne am na seen YouTube bu ñu jox 100 millions. waaw 13 moo yoroon Fonsib. waaw foofu noonu nee nañ daal am na ko ku mu fa jox 100 millions yoo xam ni daal 100 millions yi pour ca télé ba la dama xamul nag fu mu dem ca télé ba waaye ñaari plateau yooyu matul 5 millions